daleen ak jàmm seen bi di Thiowli Buzz Tabaski jot wala korite jot ay julli yu bokkul am ci réew mi di Sénégal du tey la tàmbale te daa mel ni li du fii yem lu tax ñu wax li mooy que ne daa am ñaari association islamique yu fi nekk kiy génn daal di wax ne jour bi moom mooy nekk bésu tabaski keneen ki daal di fësal beneen jour ne boobee moom mooy nekk bésum tabaski association bu ci jiitu moom mooy association nationale des imams et oulémas du Sénégal ñooñee ci seen séntu bu njëkk bu ñu doon amal te li ni mel ñu amaloon ko dimanche le 18 juin 2023 ñooñee ginnaaw bañ amalee seen séntu boobee ba noppi xamaloon nañ Sénégalais yi que ne gisuñu woon weer wi li ni mel lu doon tekki mooy que ne mardi le 20 juin moom mooy nekk bés bu njëkk ci weeru tabaski wi waaye tamit leneen lu muy tekki mooy que ne jeudi le 29 juin moom mooy nekk bésum tabaski ci réew mii di Sénégal li ni mel la association nationale des imams et oulémas du Sénégal fësaloon ba ñuy jàkkaarloog sénégal yi ginnaaw loolee am na beneen association bi nga xam ne ne Sénégal la nekk te ñooñee luñ fësal bokkul ak lu association nationale des imams et oulémas du Sénégal fësal ne loolee moom mooy datu tabaski bi ñooñee du ñenn ñu dul la coordination des musulmans du Sénégal CMS ñooñee luñu fësal nak ñom né nañ sent bu njëkk amal nañ ko ci réew mi di Sénégal dimanche 18 juin comme nuko association des imams et oulémas du Sénégal amalé waye ñom né sëgëm gisuñ ko ci réew mi di Sénégal wër wi gisoon nañ ko nak ci Arabie Saoudite té ñom buñ ko gisee fépp ci àdduna bi rek lolé day prouver que ne gis nañ ko ñom né lundi 19 juin mom moy nekk bés bu jitu ci wëru tebeski bi ñom né tamit li ni mel lu muy tekki mooy que ne mercredi le 28 juin moom mooy nekk bésu tabaski bi kon ñoo ko gisandoowaat la coordination des musulmans di Sénégal ñoom ne mercredi le 28 juin la ñuy amal la tabaski ci réew mi di Sénégal waaye l' association nationale des imams et oulémas di Sénégal ñoom nee nañ jeudi le 29 juin la ñuy amal tabaski ci réew mi di Sénégal